vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. coronavirus nak, dafa nek bu Sénégal walé. waaye nag am na ay matukaay yoo xam ne ni que ne boo ko jëlee di nga mën a mucc ci feebar bi la jël ndox mu laab bu ànd ak saabu di raxas suñu loxo yi mu set wecc saa yu ñu génnee wala saa yu ñu laalee dara ñuy faral di jël ndox mu laab bu ànd ak saabu di raxas suñu loxo yi mu set wecc bu ci soli wala ñuy sëqat ñu jël mouchoir à jeter def ko sunu bakkan ak suñu gémmiñ bu nu paree ci loolu nag jël ko sànni ko ci mbalit mi bu ñu amulee mouchoir nag Si ñuy saqat wala bu ñu ci sóoli nañu jël suñu loxo bank ko def ko nii boo bëggee leerlu ci feebar bi nag mën nga woote ci numéro vert bi 800 00 50 50 appel ba nag doo ca fay dara faggu moo gën faju donc rendez-vous bi maa ngi koy dédié au président de la république au ministère de la santé à tous les corps médicaux euh, aux forces de l'ordre etc pour leur lutte sans faille face à cette pandémie robot bi maa ngi koy defaree entièrement en base de carton presque 99 virgule cent yëpp carton la ndax ndax kii roue yi couvercle lañ ko defaree ak euh, fi ngay appuyer pour gel bi mën a génn léegi ñu ngi koy tàmbalee ci defar ay roue ci suuf léegi duñ tegee roue si lañ teg kii benn couche bu plat boo xamante ni dina ko mën a soutenir pour tànk yi mën see tegu sinon duñ ñëw rek teg tànk yi ci roue yi mën mën naa kii mën naa bañ am équilibre léegi non lañ def léegi après ñu ut benn carton nga xam dañ ko def entièrement mi nga xamante ni day day su lépp lu ne si biir rek si lañ ko dugal lépp fonctionnalité robot yëpp si si si biir kii bi la nekk si forme bu weex bi ni rectangle bi léegi bu dee kii bopp bi ak ak loxo ñu koy def en forme pyramidale maanaam mais si biir kii si biir si la baaful bi nekk baaful nag kii moo koy alimenté benn carte boo xamante ni mun nga xaak kii maanaam connecté ko directement par via via doo amul carte mémoire mun nga xaa connecté par bluetooth boo bëggee son bi mun a génne foofu si ginnaaw nag si lañ installé gel bi gel bi dañ ko def de sorte que si biir la nekk mais doo xëy ba si biti la nekk mënoon nañ koo defar fu mu gën a sophistiqué maanaam di génne automatiquement mais matériels yi nécessaire moom lañ amul même bëggoon nañ sax mu daw par commande mais matériel bi tamit daa des léegi si ginnaaw moom si lañ def gel bi ak batterie yi ak ampoule yi ampoule yi yi ñu installé si si kaw si desi si kaw gel bi maanaam si ginnaaw batterie bi fa nekk moom moo koy alimenté léegi baaxul bi batterie bi defoon def nañ si batterie de de sorte que courant bu amul mën nga xaa kii par par batterie maanaam batterie bi mën nga xaa euh, branché si si si baaxul pour mu mun a dem saa nga branché ko si ay rallonge ak yooyu dañ ko defaat tamit de toute sorte que mën nga xaa kii si sa si sa si sa kii prise bu batterie bi fiddee c'est le cas ndax instant bi batterie bi daa vide daa faible instant bi loolu tax ñu branché ko si prise mais bu dee si sonorisation bi son bi fii lay génnee si affaire bu ñuul bi mooy baaful bi mooy mooy son bi léegi son bi carte bi moo koy alimenté carte bi léegi son bi dañ ko def mu kii ñu def ko cellule de français bi ak olof bi ak ñu def si son daan corona yu snur même manam do amé ay restaurant ay ay ay comme si bund aéroport yé wala nga ci def ay eh, affiche ay poster di ci def port de masque obligatoire mën nga enregistrer fi son bi rek du nga defee ñi ñu gën see acte accès à distance tout de ni soré mëna xamni fi wo fi dugg da ngay sal masque wa non en gros da loolu lañ ko defaree a gel bi dañ ko dañ ko installer ci bir ci ginnam mais dañ ko génnee ci biti comme fi donc fi ngay appuyer rek pour mu génn fi ni donc appuyer day génn dañoo dugal gel bi si biir teg benn kii si kaw pour ngay pour mu mën a génnee foofu léegi si kaw gel bi dañ see installé lampe pour pour mu kii leer bu dee guddi gi làmp bi tamit dañ see def batterie pour pour mun kaa alimenter léegi voilà noonu lañ ko defaree daal nga xam ne guddi gi dina dina di nga mën a gis gel bi yow mi koy utiliser comme que ñu defuñu classe d'examen genre léegi mois yi ñu toog yëpp jànguñu ko léegi ma ne comme que yor léegi faa ma jëm see xalaat dara defar bon guddi gi noonu dama doon duy fee bite rek léegi may doxantu foofu si ginnaaw man kase fekk nit ñu tëdd nañ may taxaw foofu di fa xalaat donc maanaam ba mu xëyee faya teel si laa jël benn kay ne mën naa defar dara si laa commencé di dessiner def naa dessin yu bëri nag duma damay dessiner xoot sànni dessiner waat ba ba mu jox ma forme bi def naa si ay forme carré kii ay ay cercle mais forme pyramidal daal moom mu gën a convaincre léegi loolu daal moo ñu motivé ba ñu mën koo defar.